bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi lazi alama al insana ma lam yalam umma salaatu wassalaamu ala nabiyihi safiyihi la ilam wa ala alihi wa sahbihi ma uhmila fawqa al alwaahi wal awraaqi al qalam ama baad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dina fas leeral tuuti loo xamante ne bii dafa nekkoon ci sunu biir ñu dencoon ko ba tey bi yow yawmil ahadi ci bisu dimanche bi ñu war koo génne leeral ko ngir askan wépp dégg ko askanu Sénégal di ko adressé nag njiitu réew mi ak ñi mu ko bokkal ñépp dafa concerné sama njaboot gi ñu jàppoon ca gannaaw te ñu toll ci ñeent fukk ak ñett ñu ciy sant ku tedd ki nag ndax itam nañu fa nekke ci si jinn bi ku ko nekkee ci kaso rek wax dëgg yàlla dañu laa war a ñee mu dee alquran ak xasaayit néewuma kenn tooñu ca waaye bu ca ñenn tooñee itam ña ca des tooñ nañu leen waaye nu gis ni sunu malawaz di sunu mafza notre sauveur de l'humanité le serviteur du sceau des prophètes Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ko tubaab yi yóbbu booba dañu ko tooñoon kon nun ñi gën a suufee ci ak njabootam bu ñenn tooñee ci ñun wala ñu tooñ ñu ci dawla bii fii ci réewam mi ñun ak cant lañ ko war a def jàng nañ mu waxoon ne xadda anqanil yow ma xubbul ahli wal watan xandarki ma li zawil anwari wal fitan jàngoon nañ ko mu waxoon loolu ci li ko gàllankooroon ba eggagul fi mu bëgg egg ci bëgg réewam ak ñooñi réewam waaye ñu doon ñaan rek ndax man mii di wax ak yéen état dafa lu ma amee moo tax ma koy ñaan may ñaan état redevance boo xamante ni bii sama ñeent fukk ñett yooyu ñu jàppoon ma bëggoon ñu dolil ma ci ñaar muy ñeent fukk ak juróom kenn ku nekk ñu yóbbul ma ko ci benn département ci benn cachot ndax liggéey ba ya ñu fay dafa tax lu demee ni sindiidi lu demee ni tuffatu lu demee ni taysirul asir ak ikfini yooyu buñ ko doon jàng ci kaso yi nekk ci senegal yépp am na lu muy jëriñ doomu doomi waaw doomi réew mi adduna ak àllaaxira ndax dañuy dellu rek ci li boroom wax ci buy bind li muy bind ni ci aras di jaayoo ak malaayikee niñ ci sàbbale loolu moo tax yiw woowu te lépp di ay leer naqli min al-lawhil mahfuzi abada la ko tedd ki wax loolu bu ñu ko defalee rek redevance lay doon ndax état dafa am lu ma ameel man mii ci sama bopp man Ahmad Dimne Othman état dafa état sénégalais dafa am lu ma ameel may fàttali nag sama bopp di fàttali ñépp ni ku tedd ki ma waxoon ni ñaar képp mooy dugal nit kaso mooy nga war faa yokkoo daraja wa illa loo jànkoonteel ci ay bàkkaar ñu war la koo teggil ñun nag yërmande yi ku tedd kii nga xamante ni bi dañu bëgg mu tas ci ñëpp bëgg ñëpp jot ci wax dëgg yàlla nekk ci kasu ba noppi ñu may la nga mën a jàng alquran mbaa ngay jàng xasayit loolu kay wax dëgg yàlla xéewal la dëgg la xañ na bis bu ñu leen bàyyee jombul dinañ leen baaxe benn centre d'éducation boo xamante ni bii centre de redressement ndax fi ñu toll bari na ñoo xamante ni bii Eh, wax dëgg yàlla jaaxle nañ ci seeni doom waaw jaaxle nañ ci seeni doom te ni situation bi demee rek moo ko waral waaw xam naa jëmmi nag eh, ñeent fukk ak ñett yooyu ma leen wax dafa am ay benn benn yoo xam ne ay nit nitóor lañu nit nitóor mooy leen mooy nit ku am sixième sens wax nañ ma ni dafa amoon ku waxoon ca ñoom bañ leen jàppee ni leen juróomi weer laa leen may di ngeen am leneen lu ngeen lijjanti lu dul nun te ñeenti weer yi mat na kooku nag damaa bëgg mu dugal ci yërmande ndax boo nekkee góor yàlla ñaaree sa wax am na foo xam ne boo fa tolloo bal lay doon kon nañ ci dugal yërmande yërmande yi ko tedd ki daal nañ fexe ba ñëpp jot ci ñun lu ne ci man